ko ma loon rek euh, ci euh, pap Pape on a vu un discours audacieux de euh, Ousmane Sonko mais un discours également d'apaisement du président de la République euh, qui annonce li ñu ci mën a jël ci quintessence bi moom moo di levé wu li nga xamante ne moom moo di couvre-feu bi de vingt et heures à cinq heures mais cette fois-ci de zéro heure à cinq heures du matin c'était la quintessence peut-être que wax ne dina jël en charge mhm. euh, les blessés dina ndàmp famille ñi nga xamante ne seen bakkan rot ci waaw awa euh, donc tey ñu am particularité wala a euh, disséquer disséquer ñaari dossier ñaari euh, adresse pluto à la nation lay doon rek voilà donc mhm. tey ci ci Ousmane Sonko un dossier d'attaque comme il fallait s'y attendre mooy que tey ji ñii doon séentu ay protocole de protocole de xam nga fu mu de jàmm Samba de Samba Diéry non non <laughs> protocole de Samba Diéry Diallo donc c'est clair que tey dans dans son propos c'est clair et c'est benn mu ñëw indi benn humanisme bi nga xam ne kii nga xam ne moo doon le ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo njëkk wax ci affaire yi ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome humanisme bi nga xam ne moom nañu waroon am vis-à-vis des blessés et des victimes ñi nga xam ne ñoo ci daanu ñàkk humanisme boobu moom il profité justement pour mettre en avant que Sénégal au-delà de tout ñi gaañu ñi gaañu ñii faatu et tout sénégalais nañu et que nécessairement il faut que Sénégal ci boppam dajaloo autour de ceux qui ont perdu pour les soutenir loolu mu nekk un point de plus même si dans le discours du président le président a a rattrapé mais je dirais pourquoi il a rattrapé loolu mu nekk mbir mi nga xam ne tamit rafet na mm-hmm. ñaar mooy accompagnement bi nga xam ne daañu ko accompagner victimes Euh, c'était la demande également de Ousmane Sonko de, de Sonko mais euh, xam nga demande boobu ndax lan mu am solo tey jii on a vu fii des nervis même bu dee le ministre de l'intérieur l'a refusé on a vu des nervis parce que encore une fois au Sénégal xam nañu quel le matériel utilisé par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre ñii ñu fi gis ay yatak jaasi nañu yore ñooñu c'est des nervis c'est des mënuma sax. ak ay armes à feu. waaw ay armes à feu non deuxième jour bi nañu jox armes à feu yi donc ñooñu. tey jii une demande vraiment waaye góor yi sax moo leen tànn c' une demande bi nga xam ne extrêmement populaire. Mhm. tey le président est également revenu sur ça pour dire qu'on va accompagner les familles. Mhm. Euh, ndàmp leen mais ndàmp bi c' tout à fait normal xam nga keroog dama ko fi wax Pape euh, Pape Ndiaye ba Pape Ndiaye na ma voilà un sujet d' enquête bi nga xam ne nit ñi les journalistes war nañ ci wax dans les cas de catastrophe sanitaire. la loi prévoit que sinistre yi ci mun a am yëpp c'est l'État qui les prend en charge donc moom président li mu yëgal nit ñi nii c'est déjà prévu. c'est un droit. ah non c'est un droit dans les cas de catastrophe sanitaire quand la catastrophe sanitaire est, est mooy ñii nga xam ne ñoo ci ñàkk ak lu ñu munti ñàkk c'est l'État qui paye kooku moom c'est c'est c'est clair et c'est net euh, deuxième mbir mi euh, troisième mbir mi nga xam ne foofu laa bëgg a clôturer mm. te yaakaaroon naa ni que euh, moom président dana ci wax. mooy justement les attentes des Sénégalais par rapport ak nervi yooyu ñu gis ñu nekk ci mbedd yi yore ay yat impunément illégalement di régir di dóor di toroxal foogoon naa ni dana ci wax ni que enquête dana ci ubbi ndem ministre son ministre de l' na naa naa pas parlé mais moom foogoon naa ni moom clé de voûte des institutions dana ci wax xam nga ndax lan mbir moomu garaaw awa euh, démb au niveau de Diakounda sur la route national 4 entre euh, croisement Diaroumé et Oulampane booy doon manifester dañu jàpp foofu benn oto une voiture particulière bi ñu jàppee oto bi parce que waaye dafa doon forcer seen biir marche ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee on a trouvé des grenades et des munitions li tax peut-être que le gars a été sauvé mooy que dafa am une un cantonnement militaire bu nekk foofu a côté le cantonnement militaire de Diakounda ñi xam national 4 bi ils savent de quoi je parle ñooñu ñoo daw si ñëw ñooñu bu ñëwee. récupéré waa ji jël oto bi yóbbu ko ci base bi vérifier gis armes yi ak gis munitions yi ak grenades yi bi ñu vérifier le gars c' est un fonctionnaire de l' administration pénitentiaire nee na dañ ko yebal dañ koo daal benn waaye moo ko demandé service pour bu eggee Ziguinchor am kilifa foofu ci force de sécurité yi ku muy jox armes yi une telle banalité dans un pays où on parle de terrorisme où un ministre de l'intérieur et ou bien un président de de d'institution de, a osé se lever pour traiter les Sénégalais de terroristes cest dire dans un pays comme ça on ose bàyyi nit bu jógee dakaar ba Ziguinchor ak combien la zone la est insécure ni sans ordre de mission sans mhm. bu sans bordereau rien du tout finalement ni ñu mujjee def mooy té fa munitions yi ak ak ak ak yi bàyyi waa ji dem mais imagine nga kooku tey jii insécurité boobu nekk ci région bu daloon ci ay loxo euh, comment dirais-je ay loxo woyu Eh, wala wax loxo birga ñun fan nañu dem donc voilà man attente bi nga xam ne moom laa doon xaar tey jii ci président de la république mu signifié ko mais il l'a pas signifié voilà donc euh, sama première euh, euh, rek ci discours Sonko ñu boole ko ak bu président Macky Sall mhm. yaakaar naa ne am na yenn questionnement yoo xamante ne wala yenn exigence yoo xamante ne Sonko wax na ko mhm. mu mel ni président de la république répondre na ko ci fànn boobu waaw man je vais faire un peu de comparaison mhm. par rapport ak pour Sonko euh, je tout simplement un discours fédérateur rassembleur et panafricaniste mhm. euh, parce que gis nañu également ci li nga xam te moom mooy ay kàddoom euh, mi ngi jéem a ñaax boo boole sénégalais pour que ñu nekk benn wér ngànnaay ak yu ni mel mhm. euh, naa tamit kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci ñi nga xamante ñoom ñoo deele di laaj li nga xamante moom mooy ndàmpaay loolu am solo la day rejoindre li nga xamante moom lañ doon waxtaan a am impunité mhm. maanaam dee a Karim loolu c' était une demande de l'ONU moom moo demandé woon la révision du procès de Karim ba pare joxe délai mais jusqu' présent état du Sénégal joxewul benn suite par rapport ak loolu nga xamante ne moom mooy euh, mbir mi donc libération détenu politique yi également ñi ngi ko doon xaar waaye tamit li nga xamante ne moom mooy plainte bi mu annoncé CPI cour pénale internationale je rappelle que cour pénale internationale euh, bokk la cour cour internationale de justice ay état yu am problème lay àtte comme état yu xëccoonte ay frontières ak yu mel mais cour pénale internationale ci wàll gii mhm. mën nañ fi am wàll parce que non seulement ñi dee ci ay homme de tenue lañ jóge mais aussi day dugg ci cadre crime yi nga xamante ne euh, relève de la compétence de donc de la CPI muy mhm. crime de guerre crime contre l'humanité génocide et cetera donc voilà ce que ci discours ki nga xam ne moom en fait li mu allégé couvre-feu bi c'est une demande sociale sénégalais seen bopp ñoo ko sàkk woon parce que vraiment dañu demoon ba maar ci yëf yi vraiment euh, restriction yi nga xamante ne euh, dañ leen koy dañ leen koy indil maintenant li nga xamante ne wax na ko te loolu lu am solo la état bi taxaw ci mooy famille ñi deele mm-hmm. nañu leen taxaw ci blessé yi nañu leen taxaw jox leen ndàmpaay ak façon bu mu mënti doon moo xam ndax dañuy tijji ab l'enquête yu aboutir à des indemnisations ñoom ñooy famille ñi deele ba dafa am taxawaay bu am solo bu Ousmane ko wax te loolu ci état lañ ko doon séntu xam nga mi ngi wax ni dina def kéemtalaay kattanam ba dox tànk dem jaale ji seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy famille loolu wax dëgg yàlla euh, ñi ñu jiite loolu c'était la moindre des chose avant même lenn doon xew au moins la moindre chose c'était ñu dem ci famille bi jaale leen massawu leen loolu mooy li nga xam te ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy xaar ci ñu njiitu donc foofu noonu dama jàpp ne Ousmane Sonko a administré une bonne leçon de gouvernance ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu jiite. Euh, Dame ci discours président Macky Sall ndax wax nga ci discours Ousmane Sonko mais si discours président Macky Sall dañu gis itam mu waxaat ndaw ñi xam nañ ne ndaw ñi ñoo génnoon ci mbedd mi wax leen ne xam na seen problème yi ñuy jànkonteel mooy sonn nañu oisiveté beeg yi ni mel mais est-ce que c'est pas trop tard de se rendre compte que ne ndaw yi soxla woon nañu loolu bi mu fi toogee ak léegi. ñëpp euh, ñi nga xam ne yàqal nañu leen moo xam seeni kër moo xam seeni bitik moo xam seeni bërëbu liggéeyukaay loolu tax na ba ñoon ñëpp maa ngi am xalaat ci ñoom di leen xamal ne gouvernement bi ak état bi duñu leen fàtte maa ngi xalaat itam ñi nga xam ne am nañ ci ay ngaañ gaañ-gaañ dañu leen jàppale si nu ñu fajoo réew mi nag benn bopp la mun nañ koo xar ndax Sénégal dañu naan sunu gaal dañu war a joowandoo looloo tax lii ñu fi gis fan yi nekk lu yees ci Sénégal ndax politique yàgg na fi am xëccoo yàgg na fi am manifestation yàgg na fi am waaye nag manifestation yu mel nii servir dans des pays voilà kon euh, niñ ko doon defaree rek dañuy continuer wéyal li nga xamante ne moo di plateau bi ndax su randoo am na beneen plateau spécial boo xamante ne Moustapha Diop ak ay ganam dina leen ko euh, jagleel daam ñu bàyyi la ci ponk bi nga xamante ne fa nga nekkoon waaw euh, ce serait dommage nag quand même parce que président euh, Macky Sall daf ñu tàmmal discours en français bi ak discours en wolof bi du nu yem. Mhm. man bëggoon naa déglu discours en wolof bi parce que man j'ai l'impression que discours en français bi il voulait rassurer euh, vraiment euh, l'étranger voilà. à dire que tu sens dans le discours que da di wax ne il y a une reprise en main dalal seen xel wane ni situation bi dépassé wu ko dina wut ay solution et que bi ci ëppoon solo mooy vraiment les problèmes yi jeunes yi wax dinaa ci wut ay solution dinaa lever couvre-feu bi wala dinaa parce que minuit moom mooy lever naa ko rek parce que sénégalais yi quand même li ñu doon kaas mooy ñi ngi yegg seen kër ci ay jafe-jafe di xat-xatloo ci kaar yi parce que 18 heures la ñëpp daan wàcc mmh. mais su ko yóbboo minuit dañuy ñëwaat à une situation normale mmh. parce que sénégalais yi bu ñu daan wàcc en situation normale 22 heures moo leen di fekk seen kër mmh. mais euh, wala 22 heures am na bu nee minuit kon kon situation normale mooy ñëwaat kon ça veut dire que na couvre-feu bi loolu la signifié en réalité maintenant rek ñenn rek ñoo nar a taxaw di kaas mooy artistes yi <laughs> parce que ñoom comme guddi gi lañ doon fonctionner ay minuit ak ñenn liggéeykaayu guddi yi ñoom rek ñoo am problème peut-être mais quand même la majorité de sénégalais yi xëy di liggéey ñoom bu ñu ko yóbboo minuit rek mooy levé nañ couvre-feu pour ñoom mhm. mais man li ma jàpp mooy euh, ci discours président Macky Sall il a l'impression de dire au Sénégalais que ce que le de l'Intérieur a dit ça ne m'engage pas parce que ministre de l'Intérieur dafa génn menacer Sénégalais yi wane beaucoup de manque de maturité moom mu ñëw wane ni dama ñëw pour apaiser. Mhm. ñëw ma pour xeex mais loolu jàngat bi ma ciy def rek mooy baax na mhm. quand même parce que loolu ñëpp doon xaar ci moom mais li ma ciy wax rek mooy comme ni ma koy waxee day yolomal ngembam mais du ko tekki ci ko xam président Macky Sall ci xeex. man gëm naa ne dana waaja la waajalaat waajalaat pourquoi parce que comme moom euh, contrôle judiciaire la def waa ji te procédure mi ngi nekk en cours man jàpp naa ne capable na commencer préparer waat renforcer ses effectifs renforcer les équipements préparer waat pour jëm fi mu jëm parce que 2024 mooy enjeu bi bu ko nit ñi fàttee l'enjeu de tout ce complot là c'est 2024 fexe ba 2024 comme candidat bi après coalition bu roog soow bi benn candidat la fi dese bu sérieux kooku fii ba deux mille vingt quatre nu mu mën a def pour faagaagal ko dina ko def. parce que contrairement ak li nit ñuy wax mbir mi du mbirum Sénégal kese. parce que surtout sax ci biir xeex bi les les les manifestants yi def dem laal des intérêts supposés en tout cas des intérêts supposés de la France parce que man gëm naa ne am na ñunu laal ñoo xam ne du directement France la mm. intéressé mais des Sénégalais ñoo def seen xaalis. Mm. mais message bi c'était ça les Sénégalais boobu message dañ bëggoon envoyer la France envoyer ko Macky Sall ne ko trop c'est trop sunu bi France daf ko fat kon nag man jàpp naa ni loolu lépp boo ko jàngatee da ngay gëm ni ennemi yi nga xam si ñoo jàkkaarloo ak président Ousmane Sonko bu bu nelawul bu fekkente ne doful laa wax de man su ma nekkoon ci place am damay gëm ni ñii pareeguñ pour lâcher. Mhm. donc mu waajal parce que ñoom buñ paree ci lii dañuy waajalaat parce que mi ngi mel ni mbër mu dem ñu jekk ko man jàpp naa ni président Macky Sall ko xool ci ni muy waxee tu sens c'est un président c'est un moom si mi ngi woote parce qu'il n'a pas mais ci sentiruma benn instant ci li muy wax que moom nit la koo xam pare na pour sede li ma jàpp mooy day waajalaat. Mhm. te waajal bi dina ko def ci bépp anam. mais donc l'autre camp ñi nga xam ñoo jàmmarloo nag moom mooy le peuple parce que en réalité euh, Ousmane Sonko l'a bien dit c'est le peuple qui a résisté nañu xam ni bu ñu bëggee garder seen souveraineté dañuy garder seen vigilance. d'accord parce que xam naa ni mbir mi tega tegaguñ ko ci suuf. mais waa waajaliwaat moo fi am. d'accord bu ko defee bu demee ba yaakaar ne amaat na doole. mais nag man ci li ma gëm foofu laay daaneel te dinaa ko conseil moom président Macky Sall ni ko kenn du xeex sa peuple. su xamee ni peuple bi d'accorduñ ci li mu bëgg a def na ko teg ci suuf définitivement. Mhm. bu ko defee ñu jàll ci leneen. bu ko defee comme moom du candidat 2024 parce que loolu la wax dëgg yàlla constitution Sénégal wax loolu la texte réew mi wax que ñaari mandat la mën a am. Euh, yu consécutif bu xësee am jeex na mënatu la nekk candidat man jàpp naa ne foofu bu ko defee rek. Mhm. mu leeral parce que man jàpp naa ne fi mu toll nii dama doon leer yaakaar sax tey na leeral ni man duma sama wii nii wii nii non bi tey pour man tey la waroon a leeral. Mhm. ni non du ma nekk candidat mais malheureusement loolu àggu ci quoi. Babacar un discours furtif boo xamante ne euh, appesantirul si yenn point yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ko di doon xaar naam c'est un discours bi nga xamante ne qui fait appel au calme. mais est-ce que ce discours peut calmer l'ardeur des Sénégalais waaw euh, Macky Sall bi nu gis tey mu adressé wu aux Sénégalais pour man il est complètement déconnecté wala xamul l'aspiration profonde de Sénégalais léegi-léegi dama dégg daam boo dinaan 2024 la ñuy préparé mais daam dañuy fàtte ni en disant 2024 la ñuy préparé c'est comme si vous mettez dans la tête des gens et vous faites accepter cette idée que Macky Sall est candidat en 2024 moo fal moo moo moo faire voter une constitution qui lui interdit d'être candidat à un troisième non, mandat. il faut que ça se soit clair que dina une minute. waaw quelques secondes c'est-à-dire que man néew mhm. moom déer ne candidat. mais président Afrique yi dañuy sóoraale seen ginnaaw. man li ma gën mooy président Macky Sall boo ko sentiré ci ni may tey il est moins ferme qu'avant ci troisième mandat bi. léegi man li ma gëm mooy waajal bi du rek pour moom mu ne candidat mais day waajal ki koy wuutu. d'accord léegi léegi situation bi ñu nekk situation bi ñu nekk. bu mu ñu fàtteloo l'objectif l'objectif c'est quoi c'est qu'il faut respecter la volonté populaire des Sénégalais d'autant plus que cette volonté populaire la a été. Euh, ki ki ki ñëw vendre ñu projet boobu c'est Macky Sall lui-même en disant je ne suis pas candidat à un troisième je ne suis pas candidat à un, à un, à un, à un troisième mandat que ce soit clair 2024 Macky bokku ci léegi bi ma dégloo Macky Sall mu ni j'ai entendu la colère et la crise des Sénégalais dafay fàtte l'essence même de cette crise l'essence même de cette de, de, de cette Sénégalais dans la rue c'est quoi dañu ne fenn bi ngeen def tappale bi ngeen def njuut njaaj bi ngeen def pour takkal doomi aadama dugal ko ci kaso bi tëj ko tëjaale ay nit loolu ànduñu ci loolu la sénégalais wax d'abord ci biir ñu ne la somme des frustrations moo tax mu mel ni bomb bu éclaté la somme des frustrations c'est quoi les sénégalais disent que daf ñuy tëddaloo 21 heures c'est une des frustrations benn la boo demee ci euh, euh, ndengeleer ñu ne sunu suba sunu ëllëg wóorut parce que dafa nangu suñu suuf jox ko ki nga xam ne mooy Babacar Ngom ñu def si seen njuuj njaaj boo demee fii ci fii ci fii ci Ngor fii ci West Foire euh, benn xale bu góor bu tuddu Ndiir Cheikh Ndiir ay teeram yi nga xam ne ay maamam ñoo ko moom ki nga xam ne moo de ancien receveur ak ak ak waa gouvernement bi ñu tàppale nangu seen i suuf boo demee Casamance ñaa gis dëkku jàmbur yu bëri ñu nangu ko ne dañ koy euh, lotissé ñu joxe ko wax naa leen kaaw boo fa bayoot ñu mën leen jox ay exemple am pagaille yoo xam ne dañu jaay nit ñi doole jël la force publique appliqué ko nit ñi bu ñu waxee ñu tiital leen ak kaso c'est la somme de toutes ces frustrations moo indi tey déglu naa ko mu ne on a soutenu la euh, fonds Covid ak affaire yooyu. am naa benn vidéo boo xam ne ça me fait tellement maire bi dañu ñëw këram ne maire da dem ñàkku ji mu jël yatam ne leen ngeen ñàkk ñi nga xam ne ñoom ngeen joxoon seen ceeb yi bi ceeb yi ñëwee. parce que par boobu tamit n'a jamais été égal. Hmm. man je à Paris. bi ñu ñëwee di dimbali seen fonds Covid boobu dañ ci def ay njuut njaaj l'ambassade euh, le consulat du Sénégal bu nekk Paris coow la rëy na fa ba ci biir ñu nekk ci biir APR ñoo ko dénoncé ma encore sama euh, sama ça me ça ça ça m'encourage encore à ci diaspora bi mu jàppale nañ leen dimbali nañ leen Liban dama ko def ci suma vidéo def naa ci article ambassadeur am Cheikh euh, Abdoul Ahad Mbacké mooy ambassadeur ba ca Arabie Saoudite bi ci biir fonds yi xam nga fonds yi bu ñu ñëwee ñan lañ ko jox ay sénégalais nee nañu ay sénégalais leen d'accord am nañu nationalité mais des libanais pur sang la jël fonds yi ñu bénéficié loo leen ci fonds Covid yooyu alors que am na xale yu sénégalais yu bëri yoo xam ne ñu ngi foofu ay jànk lañu te ñu ci bari kenn fayu leen ci weer yi fu mu nekk ni mm-hmm. lekk sax mu nekk problème si ñoom ñu bàyyi leen ñoo ñu dem jël fonds Covid yi dem jox ko ay libanais wax naa si ak euh, le le directeur des sénégalais de l'extérieur li ñu ma gëm loo mooy lan mooy soit des sénégalais la c'est des mm-hmm. war nañ ci am léegi nag am na feneen encore fu ñu doon xaare président Macky Sall moo tax ma ne il est complètement déconnecté Macky dafa mel ni mag bu nekk euh, kilifa bu nekk ci biir këram ñu ñëw ne la yow léegi toggal fële kenn dégluutu la kenn laajatu la moo tax discours am bi amul sens pour man. Mhm. parce que fii nii ñu ngi koy xaar sur l'organisation Pape Sané tudd na ko léegi d'une vraie enquête judiciaire moo wax nu ñan ñoo teg complot bi day lâché enquêteurs yi ñu xool kan moo ñu ñu interpellé Adji Rabi Sarr ñu interpellé ki nga xam ne mooy Sidi Ahmed Mbaye ñan ñoo nekk ci complot bi ñu démasquer leen ñu traduire leen devant les devant les cours et tribunaux deuxième chose ñi nga xam ne ñoo recruter nervi yi nga xam ne président Macky Sall mënut a wax pour une fois maa ngi koy wax président Macky Sall wax ni xamul mënul xam ne yëgu ko service de sécurité yi xam na ñu gis nañu ñu seetal ñu ñi recruter nervi yi nervi yi fan la ñu nekk ñu jàpp leen ñu traduire leen devant la justice il y a pas de paix sans justice autre il faut que ñu retrouver ñu tous ces gens là qui les populations fu may fu may fu may fu may fu may jeexalee tuuti ma delluwaat encore ci li nga xam ne ça s'est passé à Diaobé Diaobé qu'est-ce qui s'est passé c'est des populations qui sont venues s'en prendre à un à, un, à de gendarmerie ñu jël balle réelle tiré ko rey nañu ay nit blessé nañu ay ñeneen mënuñu xëy ñu ne ñu tout ça on n'en parle pas mais on parle de levée de couvre-feu nga baal ma euh, euh, astu fi may jeexalee tout dernièrement le ministre de l'intérieur est venu nous regarder dans le blanc de l'œil mu xool sénégalais ne leen dëkk bi ay terroristes ñoo dugg infiltré nañu am nañu ay plan ay conspiration ak affaire yooyu mais voilà le président Macky Sall bu ne day tontu sénégalais mu jàkkaarloo ak ñun waxuñu benn mesure bi nga xam ne jël na ko pour jàppale ñu terroristes yooyu parce que terroristes yooyu bu fekkee ne ñoom ragaluñu leen man ragal naa terroristes yi man ak yéen ñun ragal nañu donc mënuñu gëm la ñu ne terroristes ñoo nekk ci kii moo tax ñu déployer la force publique GIGN ak loolu ñu wàcceel ñu ci mbedd ba pare taxaw di ñu wax ay couvre-feu léegi mën ngeen génn mën ngeen soirée ak euh, affaire ñu wax fu fu fu fu fu terroriste mais Pape euh, dafa mel ni président itam son ministre de l'intérieur qui l'a dit son ministre des affaires étrangères mais dafa am président bàyyeegu ko ba léegi mooy wàllu yoon bi na la justice faire son travail dans cette affaire là mu ni fi mu ngànk tegeegu fa tànkam moom laa wax ma ndem am nañu euh, mun nañu ne am nañu apaisement à travers euh, la liberté le, le contrôle judiciaire accordé à Ousmane Sonko mais la véritable bataille le véritable combat mu ngi soo a commencé mhm. tey c'est-à-dire au-delà même de l'aspect judiciaire mhm. mooy que les avocats de Sonko dañu war a xeex pour que d'abord un faire euh, disculper leur client ba pare mettre au jour à nu tout ce complot là. Mhm. parce que tamit xoolal euh, dafa am la nga xam ne euh, malheureusement euh, heureusement pour les avocats et malheureusement pour ceux qui avaient fait ce complot là mooy que les les les preuves restent là la preuve principale mooy le PV de d' enquête de la gendarmerie gis nga loolu képp ku ci sukkandiku tu as les moyens de retourner de retrouver jusqu'au dernier commanditaire donc affaire bi il faut que mu doon un combat d' des avocats il faut que mu doon aussi une préoccupation de sénégalais bu doonoon une préoccupation des sénégalais xam nga fu mu mujj. Mhm. mooy impunité lii fi doon am moo fi amaat ñu jël ko nëpp nëppal ko mooy liste bi nga xam ne moom la Pape doon wax. ñi nga xam ne jokk am nañ fi ay problèmes ak les forces de sécurité te mujjwul fenn lii dafa war a nekk une demande nationale. les sénégalais de quelque obédience qu'il soit dañu war a jog pour que def def ko une exigence nationale président nag moi je à ce qu'ils disent vraiment vraiment le procureur de la République l'enquête là daañ ko jël de bout en bout toppatoo ko jusqu'à ce que la lumière soit faite nee na nag on ira jusqu'au bout qu'on laisse la justice travailler mais que la justice travaille dans ce sens là mooy nii rek inculpé nañu diw dans un cas de viol qui est sans aller très loin. et cette justice mm. ñëpp ñi nga xam ne ils ont la suspicion légitime sur eux. ñu mm. écarté leen du dossier ñu bàyyi ñeneen ñoo xam ne kenn amul suspicion légitime sur ces gens-là ñu. ñu euh, dernier tour ndax euh, Moustapha également dafa war a amal euh, plateau spécial. Mhm. moom moo di tey jii dafa ne laissons la justice faire son travail. Mhm. Ousmane Sonko ce qu'il demande c'est que ñu diligenter li nga xamante ne moom moo di enquête bi. Mhm. ba àgg ci li nga xamante ne moom moo di procès bi ni mu gën a gaawee lim ci teg moom moo di fexe mu mëne ay activité politique waaw foofu li may leeral mooy contrôle judiciaire ñun ñëpp xam nañ ne li ko wutaleeg liberté provisoire mooy dafa am ay restrictions mhm. mais juge bi la inculpé teg la contrôle judiciaire moom moo lay notifier exactement lan mooy restrictions yi mhm. te juge bi ñetti restrictions la ko notifier du def déclaration publique ci dossier bi ñu ko inculpé mooy affaire viol bi du génn réew mi voyage dañuy confisquer sa passeport normalement. Mhm. ak également le fait que tous les 15 jours dafa war a jaar signé. donc lu dul lii leneen lu ci nekk am na ci liberté am. am na droit exprimer si euh, publiquement am na droit dem ci ay meeting ak yeneen manifestation publique donc li ñu ko tere képp mooy wax ci dossier bi nga xamante ne moom mooy objet inculpation bi. donc mhm. loolu loolu képp la. Mhm. maintenant quand chef de l'État dit que laissons immixtion de l'exécutif dans, dans le, le voilà donc et c'est eux-mêmes dans le haut conseil de la magistrature ñu doon laajte président génn ci dootul nekkati le président waaw parce que conseil supérieur de la magistrature ce jour-là il leur a signifié clairement du ma ko def gis nga euh, magistrat bi ñu def seen lël boobu noonu pour xool naka la ñuy réformer conseil supérieur de la magistrature moo bi ñu utiliser sax ngay xam ne ñii dañoo marqué président de di conseil supérieur de la magistrature nga xam ni conseil supérieur de la magistrature mooy instance bi décidé ci carrière magistrat yi président de la république moo ko jiite ministre de la justice en est président voilà waaw Dame euh, ci point bi mujj bi rek euh, pour euh, clore fi mu nekk nii woote nañu à l'apaisement ci ñaari discours yëpp naam bu fekkee ne forme yi ça diffère mais tey jii askanub Sénégal ñoom ñoom moom seen cëggal guy état également effectivement vraiment damay door rek ci Euh, mon frère. Euh, euh, Pape Pape daane lay c'est-à-dire que gis nga man bu ma déggee yenn Sénégalais yi naan nañ dem nañ bàyyi justice mu def liggéeyam te ñun ñëpp ñu gis ni président Macky Sall moo wax 31 décembre bi ñu génn ni bu ko neex la ñuy topp ak bu ko neexul duñ ko topp. loolu c'est important aussi xam nga man damay dugg a jàng soo gisee ma indi sama terme bi. ne nañ bàyyi layam layam ji mooy nit ñi gis ni dëgg gaa ngi nii ku ne di wër-wëral naan non nañ bàyyi justice def liggéeyam alors que gis nañ ne justice bi dañ ko tënk ñoo magistrat yi ñooy xeex pour am indépendance. Mm. loolu c'est important bu fekkoon wóor na ma man ni dossier bii amul kenn ku mën a influencer la justice ba benn gendarme enqueter du démissionné ba benn juge du dem jébbalaat dossier bi beneen moroomu juge am ndax pression et cetera ba ki ko moom salon bi du taxaw ni man dañ may jaay doole. Mhm. Eh, loolu bu ci amoon man wóor ma ne justice bi kenn mënu leen a tënk bu boobaa dama naa nañ bàyyi justice mu dem parce que leer ma ne le dossier est vide aujourd'hui li mu comprendre mooy sénégalais yëpp comprendre ko mooy frustration yi da cee àndaale du mbirum Ousmane Sonko kese loolu tax euh, la société civile bi nga xam ñoo taxaw di xeex les droits et libertés l' de droit ñu encadré ko ba kenn du euh, wane ne yow yaa moom réew mi def lu la neex. loolu c' important te frustration yi secteur boo ko jël ñi ngi kaas. boo jëlee waa santé ñi ngi de de de statut. beaucoup de travail de la santé ñi ngi xaar seen statut changé ñu toog leen mettre dans la dans des situations très précaires c' la même chose sama secteur bi nga xam moom laa gën a maîtriser muy jàngalekat yi ñu leen di amel seen i acte du leen qu'ils sont très frustrés aussi même ñi ci bokkul Pastef que dañu xaar seen i acte duñ ko jot ñu amee leen seen rappel duñ leen ko fay ñu war leen a euh, jox seen euh, i seen i seen i ndàmpaay duñ leen ko jox sa di dire ñuy toog di gis ni salaire yi leen di fay méngoowul ak seen i diplôme ñu ñu ñoom ñëpp ñu frustré wu loolu lépp bu ñu accumuler toutes ces frustrations ak yeneen secteurs yëpp moo taxu ñu fépp jàmmarloo ak président Macky Sall bu bëggee jàmm nag mhm. secteur yooyu ma fi lim yëpp seen i jafe-jafe da koy teg ci table bi saafara ko mhm. ba noppi nag état de droit mu encadré ko bàyyi ni muy salfaañee ak yàlla doomu aadama yi loolu mooy indi jàmm ci dëkk bi parce que ñun ñëpp ñoo soxla jàmm te bàyyi layam d' accord daam Babacar pour ko wax nañu ne le chef de l'État a euh, mis euh, cette situation sur le dos la Covid 19 ne crise bi loolu moom moo ko waral moom moo indi frustration yëpp tey donc ça veut dire que frustration c'est les frustrés parce qu'ils sont ils n'ont pas de parce que dañu leen teree génn 21 heures moo tax ñoom ñëpp ils sont transformés en terroristes bu ñu ko fàttee ils nous tous taxés de terroristes et d'insurgés képp ku xalaatul ni ñoom képp ku xalaatul ni Ousmane Sonko dafa violé terroriste nga insurgé nga loolu dama bëggoon ma préciser ko simplement mais fi may paree fi may pare fi may dem en deuxième point la euh, Khalifa Sall, on l'a évoqué. Le cas Karim Wade, on l'a évoqué. Je vous ai encore parlé du cas de fa Bayot. ay nit ñoo xam ne fekk leen ci dëkk boo xam ne xamuñu dara lu xew ci dara ñoo xam ne musuñu sax xam luy fital ñu jël leen 26 personnes dem dugal leen ci kaso bi ñu ne toog leen ngeen bàyyi la justice faire son travail. ça fait 3 ans ñu ngi leen tëj. fi may terminer euh, Ousmane Sonko son discours dafa am loo xam ne c'est très important dans ça ñu ci bare ñu nekk Casamance jël armes yi tey. ñu naan dañuy xeex contre gouvernement indépendance Casamance indépendance Casamance aujourd'hui la situation de Ousmane Sonko dafa nekk désaveu pour ñoom ñëpp ñu xalaat ni parce que Casamance nga dëkk Sénégal faalewuñu la position Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko a di le revendique qu'il est de la Casamance mais tey bu dee waa Casamance rek ñoo naroon jóg pour xeexal Ousmane Sonko kon xeex bi du dem fenn mais dañu gis sénégalais fu mu mënti nekk fu mu mënti jóge taxawu na mu ne lii du fi am moo tax nag la la la même invitation bi mu def sénégalais yi leen ko def ne leen. ñii nekk ci àll bi ngir yàlla na ñu déposer seen fital yi ñu xam ne Sénégal bi ñu nekk ñu Sénégal lañu juddoo Sénégal lañu màggee jàmm lañu bëgg on veut tous se retrouver autour d'une table mais pour que ñu ñu ñu dawal justice ñu bañ a néewal kenn doole que mu sant Sonko ku suba mu sant Diagne wala Dieng wala Mballo wala wala wala Diao ñëpp xam ne carte d'identité sénégalaise la ñu am ñu teg leen ñëpp ci yoon. Pape pour terminer rek euh, ci euh, point yi nga xamante ne évoqué nañ ko yëpp jëm ci li nga xamante ne ñaari parti yëpp wax nañ ko tey jii quintessence bi lan lay doon. ak lan lañ ci mën a jël liñ ci wax moom daanaka euh, je dis voilà les sénégalais ont fini de se faire leur religion ku ci nekk li nga ci war a jàpp jàpp war nga ko jàpp ku ci nekk la nga ci war a dégg dégg nga ko mais xam nga benn affaire moom moom laa moom laay wax awa mhm. je dis malheureusement malheureusement. Euh, président Macky Sall tey war na xoolaat son entourage immédiat. mars avril 2020 le Quai d'Orsay dafa produire un rapport un rapport ñu dénommé ko confidentialité effet pangolin ci rapport boobu on avait dit les pays ouest africains yi nga xam ne crise bi corruption bi mal gouvernance bi gabegie bi gestion clanique bi dana indi ay problème seen dëkk bañ ci tudd Sénégal crise boobu l'effet pangolin gis nañu dégâts yi mu def gis nañu dégâts yi mu def donc mën a quelque part les les les les les les conseillers les les les collaborateurs proches du président ñii nga xam ne ñoo ko ubbi lu brèche wu complot ñoo ubbi brèche wu complot bii ñii nga xam ne ñoo ko joxoñal ne ko sénégalais yi c'est des terroristes alors que rien de tout cela n'est avéré je pèse encore mes mots je l'ai toujours dit que quand la question terroriste ici au Sénégal il faut qu'on soit sérieux avec les Sénégalais gënuñu mu Sénégalais mhm. aussi aussi aussi ils ne sont pas plus renseignés que les Sénégalais sur ce qui se passe dans la sous-région donc qu'ils arrêtent d'agiter ça agité nañ ko de 2012 à le président a tout fait pour ñu dugal ko G5 Sahel la menace n'a pas été autrement ñu dugaloon ko G5 Sahel finalement nu ñu ko gisee fan la fa dem au sommet du G5 di maye foofu un milliard de soutien milliards yooyu bu ñu ko jëloon jox ko sénégalais yi nga xam ne pendant le euh, résilience Covid bi amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñuy def bu ñu leen ko joxoon je crois que milliard boobu moo ëpp njëriñ loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko ci wax deuxième affaire bi awa on dans un état on dans une république mm-hmm. gis nga le lit de l'injustice qu'on est en train dans ce pays comme règle dans ce pays il faut que affaire bi dakk parce que bu dakkul non je suis vraiment désolé on va vers des lendemains incertains. D'accord. je reviens encore parce que tamit je le dis je de Ziguinchor <laughs> je vais le dire cette injustice que les gens vivent là-bas dans cette région c'est la seule région où les forces de sécurité utilisent des armes létales pour faire face à des manifestations paisibles et pacifiques c'est-à-dire il faut que affaire boobu ce sentiment la ce sentiment euh, de de de de de xaw ma d'infériorité bi nga xam ne moom nañu teg les populations la il faut que le président essaye de remédier à ça il y a eu des il y a eu une de huit ans et on avait dit on avait mis ça sur le compte du président les apéristes foo toog nga dégg ñu naan ñoom à instaurer la paix j'avais toujours dit que non c'est pas vrai il y a pas eu d'accalmie il y avait eu une fin de cycle des dirigeants du MFDC daf leen nank boo leen deful nank c'est une régénérescence du mouvement qui va se produire et ils ont laissé tomber aujourd'hui mm-hmm. force est de reconnaître que il y a eu un échec dans la gestion du dossier Casamance pourquoi foofu laay geexale une une semaine avant les la frange la plus importante du MFDC, c'est-à-dire les différentes factions, sauf Salif Sadio, avait tendu la main au président de la République au sein d'un au, au sein d'un mouvement qu'ils avaient organisé à Ziguinchor, ne que nous, on veut aller vers la paix sans condition. Quatre jours après, on a commencé les bombardements. Donc, il faut qu'on nous dise il s'agit de quoi il s'agit de, de quoi qui? le Sénégal est un un un, un divisible ou bien le Sénégal est un et deux divisible c'est-à-dire il faut que ñu wax ko nit ñi quoi. d'accord euh, ñuy jaajëfal bu baax euh, Pape Sané Babacar Touré également notre confrère de Kewoulo ñu lay jaajëfal bu baax euh, Pape Ndiaye ñu lay jaajëfal Dame Mbodj également ñu lay jaajëfal wax ne terme layam layam yi fi mu nekk nii droit d'auteur nga ci war a laaj. léegi mu riche <laughs> nga xamante ne jàpp nañu ba mu yemb ñu tàmbalee ko ak suñu ndaw yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci terrain bi kii di Issa Tine Abdou Khoudos Diallo Pape Gora Gueye ñu leen di jaajëfal bu baax ak Moussa Sène ak Serigne Gueye waaye di jaajëfal du côté de la réalisation ñi fi nekkoon na ci ngoon di euh, ki nga xamante ne moo di Moustapha Diop feggoo ci ak Assane Gueye di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal également Pierre-Edouard Faye ci njàppandalam di jaajëfal toute l'équipe technique